Assalamualaikum, eh, mbokki Sénégal maa ngi fii ci Darou Mouhty taxaw ak eh, coordonnateur bu Pastef ak sëñ Mara Niass ku nekk gis na liñ doon def fan yi yëpp mooy def karawaan bu wër réew mi pour soutenir suñu candidat Bassirou Diomaye Faye waaye bi ñu ñëwee léegi Darou dafa am lu fi xew mooy tentative d'assassinat hmm. bi may wax nag nekkul loo xam ne dañ koy wax nii par politique mais vidéo yi ñu ngi fii vidéo bi nga xamante ni Modou Diagne Fada ñun yëg nañ ni wut na ay nerveux taxaw buntu këram ba kenn nappe kenn koo xam ne ci ñun la àndoon jigéen bundu xatal ko ba mu ñëw moom Modou Diagne Fada ci boppam nag nekkul lu ñuy laam-laamee moom ci boppam moo ñëw di ko enquêtal boppam naan ko looy wut sama koñ sa bracelet yi nga takk ma tontu provocation parce que élection yi ni ma ko gisee dañuy gagné Darou Mouhty te ku xeex dañ ko yàq. Mm-hmm. da ngeen ko déglu ci live bi. bi nga xamee ne loolu am na mu bàyyi ko bi muy ñibbi man ñii la bëggoon a rey. Mm-hmm. te dinaa leen pour bon prévulaire nañ ñi danañ ko teg nii ci vidéo bi. mooy sama oto day daw ci tali bi mu jël ñaari pick-up ci koñ ba sama oto toll jub ko mu daw saa mètres baare sama oto ji digg tali bi xam nga kon damaa war a freiner. beneen oto bi daw 100 mètres bëgg a foncé ci sama kaw yàlla moo ma dimbali sama sëfoor euh, bi oto bi njëkk a foncé rek xamoon nañ ne dara mu ngi ñëw mu mu mu dévier jàll. loolu bi nga xamee ne rëcc naa parce que foncé nañ sama kaw oto dañoo jël balu fetal tiire ko balu fetal yi dinañ leen ko wan vidéo yi ngeen gis ñuy tiire bi loolu amee ñu wàññi ko topp ful bi maaraañas mii dañu koo dóor ay xeer bari na lool ñu blessé ci ñi ma àndal ay jigéen. ay góor ay nit ñu tiit jóge ci kaw kippi ko bi daanu parce que bala fetal yi tiir la toj nañ sama oto toj nañ oto coordonnateur bi taxaw te ma leen wax nii nag maanaam moom gumba euh, gumba jàkka jaa ngi noonu nodd neex na baat jàkka jaa ngi parce que ñi ko def ki ko commandé mooy Modou Diagne Fada trois oto ko ñetti oto ñoo ko def ñetti oto yooyu kenn ku ci nekk chauffeur ba ko doon dawal xam naa la xam sa ndey xam sa baay xam say kër liste baa fi danaa jaar ci seen tur ñoom ñëpp ñi nga ki nga xam ne moo ma tiiree baro fetal man xam naa ko te bu ñëwee bu danaa yóbbu enquêteurs yi ba ci kër ga ba wan ni mooy kan xam naa ko bu baax xam seen kër xam ndeyam xam baayam mbooleem ñi àndoon ci mbir mi ñii di sànni xeer ak ñun xam nañ leen parce que daaru waxtu lañ dëkk tañ kenn mënuñu fee réer beneen preuve bi ñu am mooy jaañ fada téléphoné na ci bis bi ci saasa borom kër gi ñu taxaw muy Cheikh Abdou Mbacke naan ko Cheikh Bara dafa ñëw sama kër di ma song moo tax ma ma tiire koy fetal kon moom yow mii téléphoné na la kon moom weddi wul ne loo def def ci léegi nag liñ bëgg mooy dañu jóge fii ñu nekk dem Dakar pour évacuer ñi nga xam ne dañoo am ay damm-damm ak ay ay blessures su ñun parce que dafa bari te fii il faut ñu yóbbu leen ñenn ñi la daan ñenn ñi principal kenn ku nekk fi la war a yóbbu suñu paree suba 17 heures dinaa amal conférence de presse boo xam ne man ak cordinateur bi ak Mara Niass ak Lamine Dero ak témoins yi nga xam ne ñoo ko fekkee ñii nekk ci ay am ci ay gaañu gaañu ñenn ñi toog ñii gis ko ku mel ne ak ñëpp ba ci Lamine Niass. ba ci njaay Touba ba ci général. ñëpp suñu ko fekkee ba ci Nooru Laay ñëpp dañ ko fekkee. Mm-hmm. loolu suba. inshallah dañ ko def ta vidéo yi nga xamantani yépp ñing koy wax mm-hmm. yenn yi danañ ko tek ci dinañ tuddu seen tour tuddu seen tour nday ak seen tour bay mm-hmm. ta Modou Diagne Fada bi c'est pas la première fois politique jaram ko rayu rayu na mm-hmm. fi sama rak man rak man mun mi la ñu daaru mi ngi di dégg rakkam Diagne Fada ko ray 2007 fi ci daaru mu kon buñ doxate ba tay Modou Diop la tudon tay jii bu doxate mu ñëwaat bi bëgg a ay nit dañ na lolu xam na mais nag tey la jaañ Fada di mujj a rey parce que dinañ ko defal plainte boo xam ne collectif la képp koo xam ne victime nga ci sa oto yàqu na ci wala ñu gaañ la ci dinañ ko am man dinaa def sama plainte collectif suba dinaa woo sama avocat maître Moussa Sarr ak maître Abdourahmane Diallo li ci yoon bëgg dinañ ko def. su fekkente ne jàpp na ne parce que bi am mbir mi amee gendarmerie li ñu njëkk a def mooy dem di garder këram pour bañ ñu attaqué ko jërul ñu koy garder parce que dara duma yi ñu ko war a duma le 24. ca ngoon lañ ko koy def ci bureau de vote lañ koy dumaan ñun li ñuy xeex xeex nañ ko Macky Sall ba pare jaañ fa la du ñu yëngal na xam ne bu fekkee dafa jàpp ne nguur gi da koy protéger maa ngi koy waatal ci barke borom Daaru Muxti fii ñu toog élection yi premier tour lañ koy gagné billaahi wa rabbul kaabati te jaañ fa la pare bu fekkee nguur gi ñoo koy bu ñuy demee dina xam ba xam moom day fetalaate wala day rayaate li ci des nag man la ak moom su fekkente ne jàpp na ne man moom dafa mën a jël sama bakkan billahi wa rabbul kaaba di jaay fa dootoo parce que day fekk ñu évacuer malade yi àndal ah, parce que ñi fi lamm dafa bari ñi fi lamm dafa bari ñi nga xam ne dañoo am ay gaañ nañ leen ci bët ñenn ñi gaañ nañ leen kenn ki sax ma nga départ jëm Dakar nii parce que dafa sonn ba nga xam ne wóorul ñeneen ñi ci des ñi ngi ci hôpitalu Daaru bi ñii ñi ngi taxaw leen xaar mm-hmm. pour bu ñu leen normaliser ñu teg leen ci ambulance yi yóbbu leen Dakar mm-hmm. loolu lépp nag jëfi Modou Diagne Fada la mm-hmm. Modou Diagne Fada koo xam ne politique kenn wérantewul ci daaru muxti ne jaral na ko rey doomu aadama ñaar rek la nekk daal mooy naan sàngara di tërëf ci mbedd yi naan sàngara di tërëf ci mbedd yi ak rey nit ñi parce que yow daaru muxti mënuñu laa topp di la liggéeyal ba nga nekk maire fii nekk député fii nekk ministre bu ne nekk fi DC bu ne lépp ci ndoddul waa daaru nga ne waa daaru muxti amuñu droit yow bëgg keneen ku dul yow malgré que yow dañoo jàppoon ne taalibe borom daaru nga bi ñu demee ba xam ne politique moo la gënal borom daaru politique la gënal sëñ Tuubaa politique la gënal lépp lañ la fi ne ñukk ànd ak seen meneen mbokkum taalibe nga ne leen du fi amee di nga xam ba xam yow yaa moom nit ñi wala moomoo nit ñi danga doon laal nag tey laal nga laalaake barke alxuraanu karim sa carrière politique fii lay jeexal ngaa yi fa billaahi wallaahi tallaahi dinaa la nokk ci kaso